أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 96 88 wala 76 923 33 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. waaw daal xam naa ne. Bakary daal xam naa ne yàlla ko baaxal daal. ay yàlla. mais Bakary. waaw. Bakary. waaw laaj Fadam. maa ngi nii de. di xaar soir Pape Diouf kër. demee soir ca Pape Diouf la. ah du yomb. loolu du yomb. loolu du yomb. demee soir Pape Diouf waaw. Montréal du yomb. Montréal du yomb man foofu ma woo Siteu Siteu laay woo Siteu Yalmin bi na ko Yalmin mu ne ma ah ma ne ko wan ma nu ñuy bàkk ko. <laughs> Baye Demba xam nga wax naag Baye Demba Baye Demba nee naa ko da nga may defal bàkku Siteu bàkku Siteu nga may tëggal. non mais bàkk nga ba pare da nga mën. waaw bàkku Siteu. wala ngaa mën papa ci tolluwaay ba naa ko Modou Lo mooy tuuma Modou Lo mooy tuuma ba ma jàppee dama lay daan Modou Lo mooy ah. États-Unis gaañ ah Siteu mag mag na waaye Modou ah, ndànk nag Siteu mag na waaye bu leen fàtte ne Modou Lo sera Modou Lo defal ndànk nag bu jaawale ah Bakary Siteu mag na doole ji yokk na bëgg na bés bi waaye Modou Lo Fadam dama leen defal ndànk. bu leen fàtte ne boo ñëwee numéro 2 mooy muy sa xarit ci njob. Eh. Ama Baldé mooy fii Fallaye. xam nga la jaar defal ndànk ñoom da nekk ca booy bee newul ci gars yi man xam nga la moo tax ma si mi sàpp Modou Lo. ah. Eumeu Sène na Eumeu Sène na dàq bëri Sénégal. Mhm. te Modou Lo li nga gën a mëne. mooy kaañu bëre kaañu xeex woowaat Eumeu Sène ci kaañu bëre indi xeex woo Ama Baldé woo Ama Baldé ci sañ-sañ fekk si ko ci woo Boy Niang ci xel fekk si ko ci alaaj faram dama ne la lay lay Siteu di bëre Modou Lo mënu koo firi <laughs> combat bi ngay gis. xaaral boo xam ne arrêté lii jëlal lii Petit lii. dama lay wax ne la combat bii ngay gis Modou Lo bu ñëw téye boppam. combat bii ngay gis Modou Lo ñëw xeexam mu wàññi komba combat bii ngay gis Modou Lo gën a vigilant ci biir géew dama la koy waxaat. combat bii la. xam naa la la Siteu di bëree Modou Lo mënu firi. xam nga lu loolu. xam nga lan mooy xew. xam nga da ngay dégg Siteu daan da ngay def tekk tekk wan la yoon. boo ne wax dégg pàccax. Siteu laay bañ mu ne rambax foofu Siteu tey daa war a ñëw indi tekk tekk woon ko yow waaye Modou Lo danaa ko defal ndànk nag man maa lay njaatige maa la sut ci làmb kon tekk googu man la war moo tax man ne la xeexu Modou Lo da koy limité bëreewu Modou Lo dana ko ndax Siteu la mu bëgg a bëre Modou Lo du ko firi bo man combat boobu benn problème laa ci am mooy loo ci def daa teel boo ci waxee teel na woo ci werantee teel na boo ko analyser teel na boo ci loo loo ci mën a wax rek loo ci mën a wax rek teel na ndax lii problème ba nekk problème mooy Modou Lo ak Siteu maa ngi nuyu sama waa ji ala ginaar làmb bu baax la maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax mais li sama problème li ma ci gis sama problème ba rek sama problème ñëwal Siteu màgg na Siteu mën naa Siteu mën na bës Siteu ndaanaan la waaye leen rek ma ci jaaxal Modou Lo salaam Modou Lo Bakary Bakary Modou Lo mu jógee ak fi mu agsi pour ndaanaan doo ko def. daan Boy ci benn deux mois yu manqué waaye Modou Lo salaam Modou Lo. am man. alaaji Faram am lu ma ci Siteu di wan. manqué basé wu ci état de forme bi Siteu di wàccee ci réew mi. dama bëgg mu won ma ne ma sama jël Modou Lo ci niveau bii laa ko tegoon ci niveau entraînement xam nga li problème xam nga lan may problème ba Siteu bu ko Modou Lo daanee du gàcc ci moom xam nga lan mooy gàcc ci Siteu Siteu ñëw bëri seeg Modou Lo bëriwul xeexul alaaj Faram damay ñëw damay ñëw ak yow dama lay wax damay ñëw ak yow ci domaine psychologique bu gën a sori dama lay wax ne la Siteu ci yoon Siteu lamb ji moo ko moom abazet ci yoon. moo ko lan moom lamb ji abazet ci yoon laa lay wax. man léegi dama lay poser benn question yow. ah ñëwaat. Eumeu Sène. Ama Balde. ndaanaan la. Boy Niang. ndaanaan lañ. lan la Siteu di liggéey ba supérieur leen ci li ñu indi woon ci seen culture Modou loolu dama bëgg nga tegal ma loolu. waaw kon kay sa waaju looloo leer moom laa lay wax moo tax ma ne la alaaju Fadam bu fàtte ne booy ñaa ba muy bëri ak mutlu dana mutlu ëppale wu ko dara dax ku bëri dax ko leen vrai wu foofu. waaw. kon ça veut dire ñaa mosut bàyyee xel si te bàyyee xel mutlu benn nga noonu. Ama Balde tamit même chose la amoon même réalité bi moo newoon ci boppam. li différent ak Siteu li muy def ci boppam ñëw bëri. xam nga lay faram dama lay wax ne la Siteu bëriwul pour doon roi des arènes Siteu dafa bëreeg Lac de Guiers jëlee fa jëlee fa défaite la fa jëlee wala match nul bi mu fa génnee xaarutoon ne dana bëree roi des arènes Siteu ñam doon tàllal loxo yëpp pour yóotu leen maanaam bu ñu wax motivation normalement lamb ji mu jëm contre Modou Lo amu dara ci lamb ji ci te doon roi des arènes soko talal loxo ñom bal la ak ngeneen ak bakari ci ginnaaw Bakary Bakary kaay kaay kaay Bakary Bakary Bakary du neex a dégg nag koy bëgg naf de billahi wallahi wa taala du neex a dégg sax li ma lay wax bakari bakari bakari bakari damaa topp Modou Lo déglu baax lii ma wax dama ko topp ca mbapat combat arène combat déclenchement la ko dalee du ma sax ñëw ci combat yi ndaw yi digganteem ak bi is jom iwamar bi Modou Lo déclenché percé daan ñi daq xeex ci làmb ay Balla Diouf Cœur de Lion boobu Balla Diouf dafa ubbalee làmb daan ay papa daan papa bu daan pour Maurice ñu du dëgg mu woo Papa Sow mi nga xam ne moom mënoon ci génération dan daan Papa Sow ci mental ñu ne du dëgg mu déclenché daan Issa Pouye ñu ne du dëgg mu daan kere bi daanoon daanaan yëpp mais mudlu Lô salaam Modou Lô. loolu loolu la ñu woowee carrière Macky Sall rek. déggoo ma ginnaaw Diomaye moo fi doon président. Bakary Modou Lô salaam dama ne ginnaaw Diomaye moo fi doon président. nga wax tey jii en tant que professionnel. le a des arènes sénégalais yi lan la ñuy xaar ci Siteu Siteu lan la sénégalais yi di xaar moom ban état de forme la Siteu di teg suñu loxo bii man pour ma communiquer ci Siteu Siteu moo ma koy wan Siteu moo naan ma man fii laa ki ci niveau entraînement Bakary man li ma la xamee yow combat Modou Lo Siteu bu desee deux mois yow ci niveau entraînement nga koy basé wu man xam naa bu baax ci niveau entraînement nga jëm ci niveau professionnel nga jëm Bakary intense bi Modou Lo di entraîner nii Siteu di ko entraîner man Siteu état de forme bi mu yor ànd naa ci gis naa ko mu jël masse masse boobu mu jël yàgg-yàgg mën na ko créer def ko miskil nangu ko mais Bakary dafa am fu Modou Lo tàmbalee ak fi mu tourné guddi gi toll mooy Modou dafa bëggoon a nekk mbër mujj gi mu nekk mbër jugi ci nekk mbër dugg ci niveau professionnel bi mu nekkee professionnel léegi athlète la Modou Lo gis nañ ko ci cas yëpp mu ngi koy nekk bépp bu ñu demee ba Balla Gaye numéro 2. bu ñu demee ba Balla Gaye numéro 2 di reyaat boppam. nga naan Bakary naan Balla Gaye baax na def naag desut. li Modou Lo réussir a tax ci niveau entraînement. laaj Fadam. du ne Bakary. Bakary boo xoolee carrière Modou Lo laaj Fadam du neex a dégg. Bakary la koy waxaat. Siteu dimbale ko ni koy dimbalee mooy. Bakary sa communication dafa àgg ci niveau sport ci niveau bu kawee àdduna bépp nangu ko am na noo xam ne nii bis boo ko teelee jox Siteu dina ñëw Modou Lo ñi mu daan ci six combats mi mujj jàpp cinq combats yi mujj yëpp Modou Lo da leen ëpp doole ci biir géew Modou Lo cinq combats yi mujj ba mu bëri Bombardier ba léegi ñoom dajal ci géew ñëpp da leen ëpp doole ban Siteu moo préparé ji Modou Lo lu roote seren Bakary mu xam nga moom laa lay wax alaaj faram damaa yàgg a jooy ci Siteu Siteu bu pare. waaw Siteu buy lekk Siteu bu jël masse musculaire bu saf-saf. nee naa la Siteu boobu bu ñëwee combat bi Modou Lo mu ci dara dama koy waxaat carrément. waaw léegi nag yow léegi nag li ma bëggoon a dégg ci sa baat dégg naa ko. waaw mais moom laa lay wax xam nga alaaj faram man ni may analyser. taxawal Bakary xamante nañu xamante nañu Bakary ban Siteu ngay xaar mu ñëw bëri si Modou Lo ban Siteu ngay xaar kilifa professionnel loolu la nga dégg.

muy man maa la ëpp maa la ëpp ci loxo donc samay distance sama 18 man maa koy gérer maa ko moom. ma question bi mosal ma question bi na Modou Lo ci xeex mu Modou Lo freiné ko mbër samp na tànkam ci xeex ku mel ni Boy Niang numéro 2 tey jii ya taxaw ne Boy Niang bi bii muy taxawee di ko xeexee. bokk na ci mbër ko gën a maîtriser lamb te Modou Lo liir na ko ci déplacement ëmb tànkam touché ko ci boo ñaa touché ko Modou xeex yëpp Modou Lo koy utiliser léegi Siteu ma dugg ci ma ci ma dugg ci taxawaay ba wala jaru ko. aywa aywa Fadam. Siteu tànk bi muy taxawee moom lay xeexee. alaaj Fadam. Siteu. Modou Lo dàgg bi muy taxawee la daan xeexee. waaw waaw. am na lu leen raw ci Siteu am na lu bëri nag da leen raw ci Siteu. mais dóor dóorum daan bi dóorum daan bi dóor dóor est-ce que est-ce naan ngeen combat wu Siteu ak de la lan la ci Siteu amélioré bàyyi ngeen ci xel. léegi man laa ñu daal man laa ñu daal comme yow tey jii sama baa ngi yow bras de fer la Siteu ak Boy dafa am lu ñu bokk lay. mooy dañoo am benn loxo boo xam nii dafa war a jóg te jógagul ba léegi. dugoon na ca sos na. mooy gauche ba. mooy favori ba moo tax ma ne la moo tax ma na la chaque jour surtout droite am boobu mu war a gën a am impact sax gauche bi ci ginnaaw. waaw ah, moo tax ma ne la surtout ca xeex boo ñaar loxo bi ci boo ñaar loxo bi ci ginnaaw mu war a ëpp doole moom la surtout dóore woon sos mu daal. alaaj faram moo tax ma ne la ca xeex ba bu fekkee ne surtout mi ngi tenir distance bi. bu ko tiiree bien. léegi moom lu bëri ci combat boobu. Bakary retire bu doy waar moo nekk foofu. ndax liy problème bu amateur yi. Modou Lo da dem nga teg ko. Modou Lo faayam ci làmb bariwut erreur lay def te erreur bi muy def ci combat bi mën na koo bañ a def ci combat bi def ko ci beneen combat. léegi yooyu da ngay dem nga jàngi faay yi mais faayu Modou Lo ndax léegi yow teg yi tamit Bakary foofu beneen point. non li bëgg wax ñeew ma ko Modou Lo dem Modou Lo daan ñaari kele la ci làmb bëriwul yan ñaari kele Bakar yaa ci commentaire yi ci commentaire yi ci commentaire yàlla xam na ne ci commentaire dama lay wax ne la daan ñaari la barak koy nga daan wa rahmatullah pour am ci nan la mbër muy mel kan moo mën a fatt Modou Lo ci ban état de forme nag lan nga yor ci lan nga yor lan nga yor ci lan nga yor ci contact moo tax dama ne la. Siteu dafa am juróomi faay yii combat ak Modou bu ci perte juróomi faay yii jarul mi ñëw bëri seeg Modou mooy cardio doole résistance contact boxe loolu amul benn bu ci war a manqué ci diggante Siteu diggante ak Modou bu ci manqué Modou Lo da cee avantage wu Bakary yaa ama yu bëri yi may wax nii man ci yow laa ko jàngee yow. xam nga xam nga lañ faram. yu bëri yi may wax ci yow laa ko lu ndaw gars yi bàyyi wuñ ci xel alaaji faram. non non non non bul dugg foofu bul dugg foofu. nañ bàyyi ba yegg yi soo comprendre. waaye li ma ci jaaxal man man maa ngi xaar Siteu man faram mooy bu ma jàkkaarloo xool Siteu yaram bi. ndax dafa am liy nelaw ci yaram Siteu te Siteu yeewu ko ba léegi Siteu amul mbër mu ko ëpp Sénégal amul benn mbër mu ko ëpp Sénégal la Siteu ndax bëgg naa booree ne man li tax ma bëri Modou Lo mérito naa ko li ma bëri Modou lu jot na loolu mu ngi koy wane ci niveau état de forme Siteu état de forme la Sénégal nam ma gis ci moom Siteu dañoo bëgg bu simmeekoo ñëpp ne laa ilaha illallah muhammadu rasulillah loolu lañ bëgg a dégg te loolu li ko may mooy liggéey. waaye li ci jaaxal lima ci li ci jaaxal Bakary bakari, bakari li ci jaaxal Modou Lo salaam Modou Lo. Modou Lo salaam Bakary Bakary Modou Lo Bakary ci géewu làmb guddi yu toll. bokk réussir bokk réussir bu réussir ci ko ci Ama Baldé dan Boy Niang daan Eumeu Sène surtout Samba Xoyaan bi daan ki nga xam ne tey jii mooy mën limal Maurice ni Papa mën naa laal limal Gris Bordeaux mën naa laa limal du jeex ah Modou ñi mu boole daan daan leen ci jamono yombul Bakary Modou Lo mooy benn mbër boo xam ne guddi yi ñu toll mooy ñëw ci làmb te xam ne Modou lii la indi ci làmb mbëri bëri boo xoolee seen i combat da xam ne kii tey ji lii la indi Modou Lo sa raar ngay gis Modou mu ñëw ci làmb nga xam ne tey Modou Lo la roi lii la indi tey Bakary man ko xoolal bu la ñuy lay seetaan comprendre man dama laa comprendre. surtout moo mën moo. loolu système de communication la. waaye li ma la kii doon wax rek. li ma dolli rek mooy Modou li ma li ma dolli rek mooy Modou Sela Modou. surtout <laughs> moo xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga ko. ngi nelaw quoi parce que xam nga c'est normal parce que Modou ñu. Modou Sela Modou war a wa ban Siteu Siteu nañu wan dañoo bëgg a gis nañu wan dafa am lu nekk ci moom Siteu dafa am luy nelaw ci moom Siteu dafa jekk ci mbër mi Siteu la muy jëlee gëluwaar da ko indaale Ndakaaru mooy bu nekk ci gëluwaar séeréer lay doon bu nekkee Ndakaaru bëgg a nekk mbër déedéet alaaji Fadam fii laa fii laa xamee waa parcelle fa la leen Modou Lo toll këtu bagari mooy wax maa ne Siteu moo <laughs> bu Bakary Bakary Bakary asalaamaaleykum wa rahmatullah tey samedi la ku ci nekk jaay foo jaar pour neexal sa samedi kon gars yi ku ci nekk utal foo jàdd pour neexal sa samedi waaye bu leen fàtte ne ma Mansour Ba woote na Mansour Ba woote ak ki nga xam ne nii ñoom Modou Lo Siteu nag Siteu dafa am lii ma koy wax nii dama koy koy bàyyi loo xel Ama Baldé première signature moom Modou Lo Boy Niang première signature moom Modou Lo keneen duggee woon ci làmb ji ci lañ génne woon ci làmb ji asalaamaaleykum wa rahmatulah alaaji Bakary Sakho yaa ngi xam waxu Bakary Sakho yi ku ci basé wu ci lii muy wax nii Bakary yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ci niveau sport lay mujj yàgg yàgg ci niveau professionnel lay yàgg yàgg yàgg ci lay mujj gi kon ba tey ay waxam. donc gaynde la sama biir la sama biir la sama biir la jërëjëf